sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak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 ñëw ñëw gis na ma waaye ñëwum ñàkk pexe. <laughs> Jacob maa ngi leen euh, di. Farba Diagne ñu ngi lay fay daaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur di sant mooram mbokk internet yi di baalu ñëpp aax di baalu ñëpp aax tamit si tabaski bii ñu génn waaw. di nuyu si waa kër bu baax a baax a baax sama papa ak sama ñoom yaay sama bàjjen ak sama tante yeeg yëpp ak sama rakk papa yi tamit ñu ngi nuyu ñëpp. yow ci man maa ngi di sant yàlla rek. waaw maa ngi fi ma war a dee rek du nuyu sama xarit yi bu baax tamit. Mm-hmm. waaw du leen nuyu bu baax a baax a baax di leen baal ak tamit di leen baalu. Mm-hmm. Jacob depuis ba mu bëree ki nga xamante ni moom mooy uh, ndigal suma juum la lépp boobu ba tey kenn gis ko te dafa am benn wax boo ma waxoon ba ma la jëlee nga ni ma sum uh, instant bi damay def stand by tuuti dem ci lutte simple yi man la lutte avec frappe nga ne ma ñi ngi may ay combat mais pareeguma pour bëre damay toog benn deux ans bu ko jaree loolu yaa ngi ci ba tey wala. waaw ah, maa ngi ci ba tey de maa ngi ci ba léegi de ndax ñu may proposer moom su ma naree bëri ak moom nekk ci lutte simple bi ba ci kanam ak kanam moomu ko gënal. waaw te ñu ngi ci lutte simple bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. Mhm. kon da nga jàpp ni ñi ñu lay proposer boole wala ak ñoom. non su ma naree bëri ñoom mooy delluwaat ginnaaw bu baax a baax sax. ah comme ni ñu may wax rek. bëri na <laughs> bëri na torop sax su ma nar bëri ñoom kañ moom nekk si lutte simple bi parce que kanam kanam moom ko gënal foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que jarul nga bëri ak ñooñu bien vrai ni sax ñàkk sa place ndax su ma juumu euh, Jacob est-ce que amoo deux défaites nga am wala benn. deux. Ah, mm-hmm. ah. kon bariwul est-ce que jarul nga jël benn booy relancer wu ci moom mën a ñëwaat. waaw loolu su ko jaree man booy laa ni ñoom de. mais def naa fi loo xamante ni yàgguma ci làmb yàgg naa ci làmb mm-hmm. def ma fi loo xamante ni garaaw na def naa fi tamit loo xamante ni garaawul mm-hmm. yaakaar naa ni am naa place boo xamante ni xeex naa ko ba nekk ko ci làmb mm-hmm. su nekkee damay bëre pour xaalis kon mieux vaut ma bàyyi damay bëre pour sama carrière bëre pour leneen ak leneen mais pas ay xaalis nii xaalis séentoo guñ ko ci làmb dañuy bëre pour seen carrière ndax bëgg nañ fee def carrière boobu baax waaw Jacob ñu gis ne ñu bari li ñuy wax que ni Jacob mën na bëree il est correct mais lenn moo xam mais c'est que dafa mbër waru fermé mais Jacob ñu bari ne comme du xumbal dafa xaw a timide looloo tax ay kombaam sax xaw a kii tuuti. <laughs> ñàkk xumbal bi yooyu ci lii bi lay yem de waaye ancêtre bi boobu lu fay dex yëpp maa koy def. mais comme parfois nga ñëw làmb xam nga dëkk gaay yi affaire yooyu noonu. yooyu moom nekkuma ci ay ñëw dëkkante bu waxante fii boobu. gars yi da lay gaañ rek. <laughs> waaw ah. <laughs> gars yi dañoo bëri doole soo ñëwee bëgg dëkk mbër moom dalay lay gaañ. Hmm. am na jamono jee Franc waxoon picc amul mbër bu ko fi mën a daan. mais hmm. Franc moo bëri soog. Hmm. su ma juumul boobu ba mu ñëwee di bàqu si man man dong maa nekkoon seul mbëru Pikine bu wàcc doon ko dëkku si. te foofu moom man kese àndoon gars yi dañ maa bu wax bu wax bu ba sama faar yi fépp di métti. Ah, kon dëkkante bi daa yii dëkkante daa métti torop sax. Ah, ah. waaw. ñu gis ni Jacob ba tey espoir nga xale nga tey espoir bu génn ne sama diggante ak Jacob bien vrai que ni kon li nga wax rek ren bëri nga ak ndigal bëri ci papa booy jinne tey loolu yooyu noonu ba jànkat nga ci def tey ci bilan bi noonu. waaw dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla bu baax rek xam ne yàlla rek a mën. moo ñu fi teg de su ko sooboon suba suba suba rek ñu delluwaat ca moom mm-hmm. dañ ko koy sante bu baax a baax mm-hmm. waaw. am nga satisfaction bilan. bilan bi nañ satisfaction bu baax a baax a baax baax parce que am nañ victoire am nañ défaite te défaite moom yaakaar naa ni da lay jàngal. bu mm-hmm. baax a baax a baax défaite sax moo gën victoire foofu ndax mën nga am victoire di dem rek doo xam. doo xam fooy teg sa tànk doo xam nooy toogee doo xam nooy taxawee doo xam dara mais soo amee defet dangay xam bu baax baax fii dama fa war a teg sama tànk fii waruma fee teg sama tànk dama war a doxe nii waruma doxee nii. Mm-hmm. Mm-hmm. defet lu baax ci mbër la. Mm-hmm. waaw fan yi nga amoon combat boo xam te ni ndax su ma nee Jacob ne Ama ndax gis seen yéen ñaar ni ngeen mel mu waroon a bëri le 9 juillet mu nekk combat boo xam te ni ñëpp yéen ko doon xaar ñu gis ni Gris Bordeaux am na blessure. comme combat boobu noonu ñu bari nag wax ji bari na damaa yërëm Ama cinq ans yi mu toog mais nan nga gisee loolu noonu tey Ama Baldé waroon a bëri ak Modou Lo Modou Lo blessé mu waroon a après combat ñëwaat ñu gis cinq ans yi mu toog bëriwul loolu nan nga ko jàngatee. waaw sant yàlla rek. yàlla moom ku gën a bëgg rek lay teg na topp da koy sant rek. continué waat entraînement yi bañ a rek. waaw nekkee kaaw Gris Bordeaux Ama njëkk blessé Gris te Gris dara defu ci dara. waaw kon suñ tourné waatee Gris Bordeaux sa tamit dañuy sant rek xam ne sport la ak lu ci mën a xew daal sport la di ko ñaanal yàlla su nekkee nattu la yàlla teggil ko ko ba mu commencé waat bëri waat loolu la ñuy wax. mais cinq ans yi mu toog ñu gis ni wax ji bari na est-ce que du ko amul dara lu muy pénaliser Ama ndax Ama fii waroon na koo dépassé bu yàgg. non yàqalu ko dara. yàqalu loxo dara nan la yàqal titre roi des arènes ba léegi mu ngi en cours. yow sa combat Gris Bordeaux la ñuy wax boobu la wax kañ lañ koy bëre waaw da nga naan ama kañ lay bëre rek mais su bëree lépp mun na ubbee ko waat ci côté ci mm-hmm. barke Alxuraan mm-hmm. dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko li ci moom. Mm-hmm. mais le fait ñaari combat benn bi roi des arènes la benn bi Gris Bordeaux te ñoo ñëpp ñoo ko expérience ci làmb est-ce que tey loolu noonu pour mu bëree ko déwén ci benn 6 mois ci ci benn 2 mois ñaari combat yooyu ama mën na ko. ama ñu ko daan ñu. ñu ñu daan du moins ñoo ko ëpp expérience ci làmb foofu ñoo ko jiitu ci làmb ama xale fu ndaw la amagul lu muy perte bay regretté cinq ans yi mu toog bariwul ama tegle na fi benn saison bëri si su ma juumul huit combats ma set xam nga gënul ñeneen ñi dañ koy sant da koy sant yàlla rek. mais deux mois mën bañ a mën a préparer xale bu ndaw la waaw. moom bien sûr mën na leen boole sax benn jour ñoom ñaar. benn jour ñoom ñaar. billaahi mun ak mun na ko. juum muur ak giri. yàlla xam na ni mun na ko. mun na lu raw loolu. Hmm. <laughs> waaw lu ne ci boobu moo nekk ko sax. ñu ko topp ñun ñuy topp ko mbapat ba arène xam nañ ko bu baax a baax a baax. dafa ne Modou mi leen di sànni ay misir rek. <laughs> ngi koy nuyu au bu baax a baax a baax. Eh. waaw ay missiles. que ni staff ama bi ay dof lañ di tooñ noonu wax ji commencé kii wala doo koy dégg. <laughs> non ay waxam la xam nga <laughs> rek xam nga rek ku nekk ak doo jaar ba ruube rek loolu du problème <laughs> loolu moom fii lañ ko fekk fii lañ koy lii. fii lañ koy bàyyi non gisee ma ko dara. Mm-hmm. parce que ah soo soo mm-hmm. man yeneen laay lijjanti lijjanti wu ma ay kii dof laa kii du dof waaw ku ngay traité dof moom di nga bëri moom farfosse sooy traité ay. staff am lu mu mën a doon soo leen di traité dof da ngay bëri far force peut-être staff bi da koy déranger moo tax mu leen di traité loolu. Mm. <laughs> mais du leneen. <laughs> beneen ba tey sa grand. Balla gay 2 waroon na bëri ak ki nga xam moom mooy Eumeu Sène ci cadre blessure nga dégg nii gars yi naan <laughs> gars yi naan blessure yi gars yi dañ koy politiquer blessure yi amul ñu ngi naan blessure mais nan nga gisee Balla Gaye ñu gis ne déposé na recours euh, li nga xam te ne moom mooy certificat médical combat am ak Eumeu loolu tamit noonu ko koy dégg ak fan yi wax ji fii nekk. waaw di ko ñaanal jàmm rek. ku si blessé ñu ngi ñaanal jàmm nga taneeg jàmm. pour arène bi yënguwaat neexaat. Mhm. waaw. Mhm. fan yi wax ji bari na wax ji bari na problème yi yu mag yi ñoo yàq làmb ji yooyu gisee. est que doo ma laaj ci noonu nga gisee fan yi coowul làmb quoi yow ci làmb nga nekk tamit boo koy gis di ko nga gis gars li may suivre làmb nag bariwul de basket laa ëpp lu may suivre ak box. Mhm. Mhm. yan mbëri ñoo yàq làmb. mbëri yu mag yi. mbëri ñoo yi mënuñoo làq. non mënuñoo yàq làmb. xëy na mhm. gars yi ñooy jël politique bi bu ko rax ci làmb ji rek mais mbëri mag yi ma wax dëgg yàq làmb làmb si nit dama nooy maam la ba léegi. fii lañ koy fekk dañ siy ñëw bay suñu waar dem suñu yoon ana sama maam dem na. sama maam mbay Guèye même chose maam góor gi. maam Double Less ñëpp ku fi ñëw da ngay bàyyi trace dem sa yoon maanaam ku fi bàyyi rek na nga bàyyi loo xamante ni woy bu rafet la waaw daal loolu la xamoon ci loo xam ne dama koy mën a ku fi bàyyi rek na nga bàyyi loo xamante ni woy bu rafet la maanaam say sët suñ ko déggee du leen métti wala say doom suñ ko déggee du leen métti ndax alal lu mu bari bari bari da ngay dee baa ko fi luñ la mën a jox ci àdduna soo tëddee fàtte ko àdduna gi luñ la fi mën a jox wala luñ la fi mën a dikk wala ñu la fi mën a lebal loo fi mën a def soo tëddee laa lay wax léegi léegi fàtte ko. Mm-hmm. moo tax lépp bu mu mën a doon rek nay rafet. Mm-hmm. Mm-hmm. Jacob lan moo tax mu bàyyee lutte avec frappe pour l'instant ñëw ci mbapat bi da nga bëgg a wane sa bopp wala da nga mën a peser sa bopp. wane sama bopp sax damay compétir rek. comme lutte avec frappe bi. ba ma ndigal daanee ba léegi gars yi dañuy wax di daw di wax di daw. te xale laa amaguma lu may ñàkk wala lu may per waaw moo tax ñu ne staff bi yëpp toog ne ma wàccaatal si lutte simple bi malgré maa ngi ci woon sax mais dama cee bëgg gën a fës ci barke alxuraan waaw yàlla baax na ñu ngi ci daal ñu ngi ci lutte simple bi baax a baax a baax a baax. te yaa ngi xamante ni peut être ñu ngi lëmb làmb nga leen di bëree ñu lay leen di daan. maa ngi ci dajante ay mbër moom maa ay mbër ñu may daan bu baax a baax a baax sax. ñu mm-hmm. <laughs> may daan bu baax. yaa baax. <laughs> waaw man tamit may foraatu des fois rek. di daan bu <laughs> di foraatu rek. luy foraatu waaw di foraatu di leen daan rek ñoom moom ñu koy daan bu baax a baax man moom maa ngi foraatu rek ndànk ndànk di daan. Ah. tax nga abandonné lutte avec frappe bi. abandonné wu ma ko sax comme li ma comme li ma la wax début bi rek. am na ñoo xamante ni su ma naree bëri ñoom mieux vaut ma dem lutte simple bi di fa am compétition amaale fa leneen tamit loo xamante ni dama ko fay jàng. saison bi mi ngi tëj est-ce que mën nañoo xam naa Zako moom déwén. non saison bi kay saa ay jeex na <laughs> saison bi kay jeex na. saison xanaa déwén rek incha allahu ah. rabi. Ah. mais yow da nga yi ñu lay wax te Jacob yow nee nga booy nga mais yow yan façon booy yow da nga jàpp booy yi nga xam te ñu ñu la bëgg a jox yaa leen raw wala yan façon booy ngay. ñoo xam ñoo booy dañoo sax. saison ren saison daaw lañ commencé bëre. saison daaw su ma juumul ay ñu ngi si lan deux mille vingt trois. Hmm. ay deux mille vingt un lañ commencé bëre. ñu bëree sept combat wala huit combat ñu ne acca yaag Jacob wala booy safi tamit fii de looy saf-saf soo jiyee da ngay nooy nepp xam naa booy safi Jacob ah. neexul ay mbir man moom kuñ ma si proposé dama naa leen acca d'accord naa muy booy doo ko jëw ak yëpp dama naa d'accord naa waaw deux jours trois jours ñu ne acca dañuy négocier seen staff lay déggonteel Mhm, bëri na ci ay morom. ma la waxoon bien moom du lim lu taam ay adversaire mais tey Jacob ban mbër la bëgg a bëri ak moom pour mën a wane boppam. man ku yàlla boole rek ndax mbëg li nga bëgg bëri nit. Mm. moom du bëgg bëri yow. Mm. wala nga bëgg bëri nit yàlla du leen boole. ku yàlla booleel pour ñu bëri rek. Ah, ndax ndax man moom ñu may bëreel. yaakaar mu ci àdduna naa bëri ñoom. ok ñu ma jot a bëreel. yaakaar ay ñoom digal ñoom papa buy jëndee. Manick daal laa bëreel xam naa ni bëggoon naa bëgg waaw man bëggoon naa bëri moom. Mm-hmm. Mm-hmm. mais moom moom ku la joxaat kii avance Manick nga jël. non <laughs> gën ci ni nga nekk waaw ñu ngi nuyuwaale Père Kéré bu baax a baax a baax a baax. Ah. mu nekkee équipe bu Dakar bi gis nañ ni ñu taxawoo. Mm-hmm. moom waaw moom ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax def na ci ñun expérience même pas une semaine wala deux semaines moom def na ci ñun ak Père Kati. ak ñoom Malick Ngom ak équipe bu bi ñu fa nekkoon ñëpp maa ngi leen nuyu passage bu baax a baax a baax a baax gis nañ ni ñu taxawee woon ak coach Paul ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. mais say adversaire est-ce amuñu combat. ci combat man bëri naa fay adversaire de Fatou Ndiaye. waaw kon <laughs> ñan laa fi ragal. <laughs> non xam nga gars yi koo libre rek da nga daan kii. jug jugal dama bu yàgg ba toog te loolu laay bañ <laughs> jugal ba kenn. mais bari naa fi adversaire ay combat yoo xamante ni ku ko tëgg da xam ne lii combat la Pape Ndoye Gamou Gueye numéro 2 xam nga gaa yooyu dafa mbër moom bëggatuma sax ay waxam mu ngi noonu moom moom bëggatuma sax wax ay waxam yooyu neex ay Pape Ndoye ah, Gamou Gueye Tapha Mbeur mais Tapha Mbeur yambar la. Ah, non Tapha Mbeur moom moom moo gën a yabar ci bëri dafa yabar de Tapha Mbeur ba ko dalee tukku ba léegi eh. léegi mat léegi mat deux ans de wallaahi eh. eh. hmm. ñuñ laa bëgg bëreel Pape Ndoye hmm. surtout ma Pape Ndoye Pape Ndoye nag laa ci gën a bëgg a bëreel <laughs> boo tax mu neex ma Pape waaw hmm. Pape Ndoye laa la a neex. lan moo tax mu gën a neex. day dóore moo te dafa bëri waaw dafa bëri doole punkal. jox sa kanam gars yi moo français lan <laughs> français seen waa laa de. waaw même même. takke sax waaw Pape Ndoye sax. day qualifié ak takk yëpp. Eh, man ku ci pare rek waaw ku ci pare pare daal. Coulifay ba dalee dox si combat ba léegi moom tamit mu ngi bëgg a yàgg. Hmm. Hmm. Jacob yow Jacob yow. c'est ndigal a xaw a sooxeel lii bi rek. <laughs> mais instant yii di a këpp yalwaat bi rek. di waroon naa fekk ñu ngi fële. Ah. ñu ngi ci poggal yi di ma waxanteeg ñoom ba léegi. billaahi. mais lan moo tax nga de non damay bëri ak ñoom de. Ah, da ngay bëri ak ñoom. doog laa dul bëree la. ah mais <laughs> a bëree waaye man damay liggéey xaalis rek. damay liggéey de damay liggéey tey carrière bi dafa xaw a gàtt carrière bu mbër doon na carrière bu gën a gàtt ci carrière yi mm-hmm. soo gaañoo mooy pare nga ci mm-hmm. soo feebaree kenn du la faj soo blessé kenn du la faj mm-hmm. moo tax soo si nekkee bu amul sax ma dem ma ñëw man am na benn jamono ba mu bëreeg papa ba mu su ma juumal su ma ba mu bëreeg jobaas boo jobaas ba pare su ma rombee yuuxu yéeg yooyu noonu te instant yi lutte simple bi sax moo yëkkatiwaat sama tur li may wàcc lutte simple bi bu ma ndigal daanee kay waxuma la fay sax dama mel ni ku. daxaa ku jógee si étage daaru si kaw suuf. mooy loolu lutte simple bi sax moo xaw a yëkkatiwaat sama tur bi tuuti. Ah. mais malgré loolu tamit def nañ fi loo xamante ni suñ tur day des ci làmb ji. Mm-hmm. kon ban jàngat nga am ci làmb ah, daal waxul dëgg. ko si ne. Mm-hmm. waaw jàppal ne yaa ngi ci làmb rek. Mm-hmm. naan day xaw ma biir xëy rek wasit waaw làmb la naan mbaxalu xeer la mën nga fay ba kenn dootul la déggat nga jékki-jékki yàlla ubbi bunt buntu ba doo ko sax yaakaar làmb dafa doy <laughs> làmb dafa garaaw de. lu ci dund lu bëree bëri. bokk nañ ci mbëru Pikine ñi malgré ñoo gën a nekk xale Pikine mais doon woon lim quatre mbër wala cinq bët doo tudd seen tur mais léegi dox leen ba waaye pour nga tudd seen tur di nga dem sax ba sës dangay dem ba nit ñi yow ñoo lay demandé la moo tax doo leen tudd diw. après yow par la suite ngay tourner di yaa ma gën a xam gars yi tàmbali di favoriser ñenn ñi di wàccee njëriñ <laughs> mu ngi mais lépp tawféex la lépp làmb rek xam nga làmb moom milieu bu garaaw la milieu bu garaaw bu garaaw la sax mais dañ ciy sant yàlla rek comme ñu ngi ciy am jàngat defet bu ñu jox moom waaw sant dañ ci bu baax a baax a baax a baax lu baax boole nañoo ko ay nit ñu baax xam nañ suñu vrai nit xam nañ ñuñ bëgg xam nañ ñuñ ci bañ bu baax ndax nit day ànd ak yow ndax tur nit di ànd ak yow ndax alal ñii ku nekk daal li ngay ànd ak nit waaw dëgg moom mhm. buñ digal daaree xam ne ko bu baax a baax a baax bu baax mun yow ndigal déggoo li ma wax damaa yee ci lu bari waaw malgré yàqal na ma lu bari mais yee dama ci lu bari dimbali dama ci lu bari ndigal ban genre yàqal la jiitu ci parce que su ma ko daanoon sama làmb dina ibbeeku ibbeeku boo xamante ne su ma ko daanoon yàlla dina <laughs> yàlla na ma yàlla jeg a sax si wax ji mais comme daal sama buntu àdduna dina ibbeeku waaw dina defarul lu baax a baax baax muy noonu. te combat boobu lan daan ndax on dirait que ni combat boobu defet bi daf la métti. non métti na ma trop parce que préparer sa combat ba mu des ay trois jours xaw ma quatre jours. nga am ci blessure malgré tout nga bëri waale ko bëri sa fulla ak sa jom gis ay détails yoo xamante ni sa biir kër nii ngay xool ñuy def te mënoo ci dara waaw dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñuy gën a xam fu ñuy teg seen tànk rek. production dellu si na le 16 juillet 2023 ci arène nationale muy première édition drapeau Abdoulaye Djigo di dox ci diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé diggante parcelle ak jàmba gën combat bi nga xam ni moom la amateur yi di xaar combat spécial Karbala ak Fëgala bu Ngor première édition drapeau Wan Sow responsable politique ci Parcelles Assainies bébé rëg-rëg ak caatu Jolof drapeau Ifra borom Al Amin service Ouskara ak vite fait drapeau Moussa Niang di responsable politique gëm sa bopp armée 2 ak Boy Silla drapeau Cheikh Tidiane Niang di de l'association des responsables des écurie de lutte Sénégal di yóbba diggante Momo ak Ndeye Fatou Adama Diali ñu fas yéene wàcce stade bu dee supporter 2000 francs amateur 5000 francs bu dee loge officielle 10 francs bés baa ngoog diggante Giro Seras ak Abou Ndiassé lii ku ko tardé tardé lu rëy